sëriñ daawuda jóob sëriñ daawuda jóob mi ngi gane àdduna ci atum 1874 ci dëkk bu ñuy wax daaru xarañ jóob dëkk bii di daaru xarañ jóob mi ngi ci wetu dëkk bii di sagata get ci région bii di lugaloo ci suuf si di njàmbur dëkk bii di daaru xarañ jóob buñ koy xalaat ci at am na lu toll juróom ñaar téeméeri at dëkkub cosaan la te dëkkub daara la sëriñ daawuda jóob doomu soxna aadama jóob la ak kii di sëriñ njaga dégéen jóob sëriñ Daouda Diop am na ñu mu bokk bokkal kii di soxna aadama jóob ñu ràññee ci ku ñuy wax sëriñ sayar jóob sëriñ mbay aada jóob ak soxna faati bokkar jóob ak moom sëriñ daawuda jóob mi kon ñett la bokkal waajur wu jigéen ak moom muy ñeent kii di sëriñ daawuda jóob bi matee dal lii di alxuraanul karim jàng na ko ci ëttub nijaayam ju ñuy wax sëriñ seexu jóob fa la jànge alxuraanul karim ba mokkal ko wàllu njàngum xam-xamam ku ñuy wax sàmbatu tukulóor moo ko jàngal lii di xam-xam bam géeju fa mu delluwaat nag ci ëttu waajuram bi nekk fa ginnaaw bi nag la ko waajuram jox kii di sëriñ tuuba seexul xaddiim bi mu ñëwee ci sëriñ tuuba seexul xaddiim nag la ko seexul xaddiim jox nag kii di cheikh ahmadu ndumbe mbàkke mu wéy di ko jàngal boole koog nag di ko tarbiya ci ëttub ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim dañuy delluwaat nag ci dëkk bii di daaru xarañ jóob ngir wax leen na kii di sëriñ daawuda jóob li ko indi ci ëttub ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim ci sàmba tukkulóor moomu ba mokkal lii di xam-xam delsiwaat ci atu waajuram boobu di daaru xarañ jóob nekkit ci wetu dëkk bi di sagata gett nekk fa mook ay rakkam di liggéeyal seen waajur wi sëriñ njaga degen jóob mi ca booba nag fekkoon na seen waajur wi amoon te tewoon kóllëre ak ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim kon nag ma wax leen kii di sëriñ daawuda jóob lu ko indi ci atub ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim waajuram wi di sëriñ njaga Diop mi ku amoon kóllëre la ak ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaddim ba tax na Serigne Touba Seexul Xaddim bu masaa dem ci dëkk bu ñuy wax mbaataar daana jaar ci daaru xarañ Diop moomu daa di war nag fasu kii di sëriñ Njaga Dégéen Diop ngir mën a dem ci dëkk boobu di mbaataar Serigne Njaga Dégéen Diop mi daana ñëw ay yooni yoon Mbàkke Kajoor ngir di nemmeeku ci kenn ki nga xam ne nii xaritam la di ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaddim ci biir kóllëre yooyu nag kii di sëriñ daawuda njaga jóob xamante ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim wala ci la ko waajuram jébbal ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim ci dëkk boobu di daaru xarañ jóob ndax xam ngeen na booba lii di warukaay yombul woon wala daamar ju mën a yóbbu nit dëkk dëkk yombul woon mag ñi suñ masaa def seen tukki yi ci ay fas lañ ko daa jaarale ngir mën a dem fi ñu bëgg a dem su sëriñ tuuba seexul xaddiim daa dem ci dëkk boobu di mbaataar na su masaa kajoor ba tolloog dëkk bi di daaru xarañ jóob fa lay bàyyi nag fas yu waroon daa di jël fasu sëriñ njaga dégéen jóob mi ngir mën a dem nag ci dëkk bu ñuy wax kalsaan su eggee kalsaan ma ngi fay fekk ku ñuy wax sëriñ moor biraama kumba géy wala kumba gay la fekk su eggee itam bàyyi fasu sëriñ njaga dégéen jóob mi ngir mën a war nag fasu moor biraama kumba gay ngir mën dem nag ci dëkk bu ñuy wax ngay bu demee ngay ma fay fekk ku ñuy wax saa yoro géey su demee ngay googu nag la fay bàyyi fasu sëriñ moor biraama kumba gay mii nag ngir mën a war fasu sëriñ saa yoro gay ngir mën a dem nag ci dëkk bii di mbaataar su demee mbaataar ba ay yiteem mat nag su dee ñibbisiwaat nag noonu mu ko defee woon ni la koy defaatee ba nu mu egsee ci dëkk bii di daaru xarañ mën a jëlaat aw fasam nag ñëwaat ci dëkk bii di mbàkke kajoor seexul xaddim def na ko ay yoon yoon yoon kon lii di kóllëre gi ci loolu Gànjaga Ndéguène Jóob mii di waajuru sëriñ Daawuda Jóob mii itam daana ñëw ay yooni yoon di fekk si ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul xat Xaddiim ci Mbàkke Kajoor am na bis seexul xat Xaddiim ñëwoon ci dëkk boobu di Daaru Xarañ wax waajuru kii di sëriñ Daawuda Jóob muy soxna Aada Jóob ngir mu fóotal ko ay yéreem kon Seexul xat Xaddiim moom kóolite amoon na ko ci famille boobu wala ci njaboot googu sëriñ Njaga Ndéguène Jóob tudde doom kii di Xaadim Rasuul Seexul Xaddiim ma ngi koy wax ne Njaga Ndéguène du mën a ma njëkk a tudde doom de waaye lii di sama nopp yaa ci njëkk sol kooku ko sëriñ njaga dégéen jóob tudde woon ñu ngi ko doon wax bàmba xarañ bàmba xarañ moomu am na doomam ju jigéen ju fi des ba nëgëni kii di sëriñ njaga dégéen jóob mi waajur sëriñ daawda jóob mi ñuy waxtaane itim am na bis mu bëgg bënn teen ci dëkk boobu di daaru xariñ jóob dafa ñëw ba ci ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim di ko wax ne dama bëgg bënnub teen ci dëkk boobu di daaru xarañ bënn teen teen boobee mu bënnoon sax mas nañoo dàq ab sàcc ci dëkk boobu di daaru xarañ ba sàcc ba tàbbi ci biir teen boobu bi ñëwee wax kii di sëriñ njaga dégeen jóob mu leen di xamal ni teen bi képp ku am bàkkaar du ci loroo sàcc ba bu fekkee na lañ koy jiiñ moo ko def du faatu bu fekkee ne sàccul nag mën naa ñàkk lii di bakkanam noonee mu leen ko waxe woon bañ demee lu kët lii di sàcc ba bañ ko génnee dara jotu ko sàcc bi dafa daw ba tàbbi ci ne mu ko waxe woon bañ demee sàcc bi dara jotu ko doomam jii di soxna faati baakar jóob mi bokk ak kii di sëriñ daawuda jóob waajuru góor ak waajuru jigéen itam ci biir teen boobu la des am na itam aw fasam woo xam ne nii moom la seexul xaddiim daa war su masaa ñëw ci dëkk ba ngir mën a dem ci dëkk bii di mbaataar itam ca teen boobu la tàbbi lii di fas woowu ñu ko daa wooye kumba njóobeen mi ngi ci biir teen boobu itam la tàbbi teen boobu ci fukki fan ak juróom lañ ko gas ndax dafa am bis mu ñëw seet si ku baax ki sëriñ Tuuba Seexul Xadiim di ko wax ne dama bëgg nga wax ma lan moo gën ci jaamu suñu boroom walla gan jaamu suñu boroom moo gën a gaaw ci eggaleeg doomu aadama bi ci suñu boroom Seexul Xadiim di ko wax ni soo demee nga bënn teen kon teen boobu mu bënnoon ci la doomam yooyu ak façon woowu ak sàcc boobu tàbbi woon mi ngi ci daaru xarañ jóob ginnaaw teen boobu nag mu wéy nekk ak Seexul Xadiim wàllu kóllëre ginnaaw bi nag ñëwaat na seet si waat ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim seexul xaddim di ko xamal ne bënnub teen jox doomu aadama bi mu lekk moo ko gën kon ci ndigal yooyu la sax ci kóllëre gu mu amoon nag ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim ci biir kóllëre yooyu nag la jébbaloon njabootam gi sëriñ tuuba seexul xaddim ci bu seexul xaddim masaa ñëw ci dëkk boobu ngir fas yéene dem ci dëkk bii di mbaataar kon kóllëre gi waajuru sëriñ daawuda jóob séq ku baax ki sëriñ tuuba seexul Xaddim moo indi nag sëriñ Daawuda Jóob ci ëttub ku baax ki sëriñ Tuuba Seexul Xaddim ci dëkk bu sell bii di Tuuba la jaayante ku baax ki sëriñ Tuuba Seexul Xaddim Seexul Xaddim jébbal ko taalibeem ba cheexam ba sëriñ ax Ahmadu Ndumbe Mbàkke ngir mu tarbiya ko jàngal ko sëriñ Daawuda Jóob nekk nag ci loxoy cheikh Mandumbe Mbàkke cheikh Mandumbe Mbàkke di ko jàngal di ko tarbiya ba na fi sëriñ Tuuba Seexul Xaddim bàyyi ko ci fukki fan ci mois d'août ci atum 20 dem nag ci géej gi mu ngi ci loxoy seex Mandumbe Mbàkke ci dëkk bi di kër Magéey Ndaw mook seexub seexul xaddim boobu ñu daa wax sëriñ Muhammadu Jigal ñoom ñaar ak ñeneen ñu leen seexul xaddim boole loon ñu ngi woon ci kër Magéey Ndaw ci loxoy seex Mandumbe Mbàkke bi sëriñ Tuubaa seexul xaddim di dem ci géej gi am na ñoo xam ne ci loxoy maam Ceerno Ibrahima Faati la leen tegoon waaye am na ci ñoo xam ne ci loxoy seex Mandumbe Mbàkke la leen leen fim leen dël ngir di leen xamal ne heure buñ amee addiye ju ñuy joxe wala buñ bëggee ziyaare si ñen ñëw ziyaare si kii di maam Cerno Ibrahima Faati kon yoon wi ci loxoy maam Cerno la ko tegoon waaye ndénkaan li moom bari na ci mag ñoo xam ne ni seexul xaddim ñeneen ci mag ñi la leen dénkoon yoon wépp nag maase nekk ci loxoy maam Cerno Ibrahima Faati yoon wi di doxe noonu bala 27 septembre ci atum 1902 seexul xaddiim jóge ci réew mi di Gabon ngir mën nag ñibbisiwaat ci réew mi di Sénégal fukki fan benn ci mois de novembre ci atum 1902 la wàcc ci waaxi ndakaaru yi mu dem ndar géej jóge ndar géej ñëw Louga loo le 2 décembre ci dëkk bii di Louga la ko fekk dëkk boobu di Louga loo bi fa Sëriñ Tuuba seexul xaddiim ñëwee la toog ba mu yàgg mun a tekk ab diir bu xaw yàgg mag ñi na tekk ba mu yàgg mu mag ñi xanaa lii ma def def de jaaxal ne leen ndax tukki naa ci géej gi ba ñibbisi defuma benn yoon lu ma astaxfurlaa di fekke waaye fi ma taxaw ak yéen wala fii ma toog ak yéen di wax de malaaka yi ñoo ma doon tàgge njaga dégeen jóob ca daaru xarañ dama wax ni wuy na suñu boroom kon liitim seexul xaddiim jaar na ceeg waajuru sëriñ daawuda jóob di sëriñ njaga dégeen jóob ginnaaw lugaloo seexul xaddiim dem ci dëkk bi di bari jàmm siise ginnaaw bari jàmm siise sànnoosi ginnaaw seexul xaddiim jaar fu mu jaar ba ni mu egsee nag ci dëkk bii di daaru salaam ci daaru salaam googu fi la sëriñ daawuda jóob nag jote lii di ngërëmam bi sëriñ daawuda jóob jote ngërëm ci sëriñ tuuba seexul xaddiim dafa delluwaat na kër ma géey ndaw nekkaat nag ci loxoy seex ma ndumbe mbàkke ndax foofu la xam foofu la miin seexul xaddiim woolu waat ko bam ñëw di ko xamal ne na jóge ci dëkk boobu di kër ma géey ndaw delluwaat ca dëkku cosaanam boobu di daaru xariñ jóob ndax mu dem toog noonee ko seexul xaddim waxe woon sëriñ daawuda jóob ni la ko amale dem nag ci dëkk boobu di daaru xarañ jóob di fa liggéey di fa yar ak a jàngale ak li nga xam ne ni moom la cheikh mandumbe mbàkke def ci moom muy liggéey taalibe yim njëkk am foofu la leen amee ci dëkk boobu di daaru xarañ jóob ginnaaw bu mu jógee ci kër ma gay ndaw ci ndigalul ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim ñu ràññee ci taalibe yi ku ñuy wax sëriñ moor matiwan sëriñ mabéy sina sëriñ usmaan xaya sëriñ moor caam sëriñ baakar sëriñ Bakar Mbay mi sax kii di sëriñ Daawuda Jóob seexal na ko kon bokk na ci seexi sëriñ Daawuda Jóob yi sëriñ Cheikh Caam sëriñ Cheikh Mbóoc góor yàlla yooyu toppoon ci ginnaaw sëriñ Daawuda Jóob di ko liggéeyal ràññee nañ ci ku ñuy wax sëriñ Ousmane Xaya ndax dafa def lu am solo ci dund kii di sëriñ Daawuda Jóob dafa am bis sëriñ Daawuda Jóob ne ab bukki la soxla wax kii di sëriñ Ousmane Xaya di ko wax ne bukki laa bëgg sëriñ Ousmane Xaya dugg na ci foore dund bukki boobu yeew nañ ko ci jat jóob ay fan ginnaaw bi nag la ko sëriñ daawuda jóob yeewi mu dem kon sëriñ Ousmane Xaya kenn la ci jàmbaar yi toppoon sëriñ daawuda jóob te ku ko gëmoon la te wane na ko te naar bu xonq cooy la te wuti na bëgg-bëggub sëriñam ndax bukki la soxla woon tund wër dëkk bii di daaru xariñ jóob itam tàmbulee fop seenu njaboot di ko jébbal ku baax kii di sëriñ daawuda jóob ñu ràññee ci dëkk bu ñuy wax mboojeen dëkk bu wax kër jawli ku ma nga fa woon ak dëkk bu ñuy wax gis jàmm ak dëkk bu ñuy wax dallax ak dëkk bu ñuy wax mbuyu njóobeen ak xarañ gu mag dëkk yépp itim tàmbulee fab seeni doom di ko yit ku baax kii di sëriñ daawuda jóob sëriñ daawuda jóob fa la nekk nag ba xajatul ci dëkk boobu mu ñëwaat seet si ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim ci atum 1913 di ko wax ne dëkk boobu nga ma dëloon di di daaru xarañ jóob xajatuma fa ndax kat mbooloo mi nga xam ni ñoo toog ci sama ginnaaw ànd ak man ànd ak ñoom itam di la liggéeyal foofu di daaru xarañkat suuf suñ bayee sax amatuñ ko seexul xaddim di ko wax ne kon mën ngaa dem sanc beneen dëkk waaye booy sancu dëkk nag bul sori kii di maam Ceerno Ibrahima Faati ci la ñëwee nag ci wetu dëkk bii di daaru moxti sanc fa dëkk bu ñuy wax jat mi jóob mi jóob gi sax foofu la génne àdduna ci atum 1939 ñu indi ko ci dëkk bu sell bii di Tuubaa kii di Sëriñ Daawuda Jóob benn dëkk rek la sañc ci ak nekkinam muy dëkk bu ñuy wax jat mi jóob mi ci wetu dëkk bii di daaru moxti ci atum 1913 nekkaatoon na nag ci dëkk bii di xarañ ndax bi jotee ngërëm foofu la ko seexul xaddiim dëloon ci dëkk bu sell bii di tuubaa nag njabootam am nañ fi fuñ fi féete mooy quartier bi ñu tudde jàkkey muuma ci tuubaa ci koñ boobu fi la njabootuk sëriñ daawuda jóob mi nekk karce boobu di jàkkey muuma sax te lenn ci njabootuk sëriñ daawuda jóob féete fa taw féex la tudd sëriñ ibrahima jóob mi nekkoon ñaareelu xalifa sëriñ daawuda jóob moo fa féete woon jàkka jooju fa nekk sax ñu koy wax jàkkay muuma moom moo ko fa tabax li indi turu jàkka jooju di jàkkay muuma benn muuma bu dëkkoon ci penku lii di kër ga wala penku lii di jàkka ja moo tuddoon abdulaay ablaay moomu nag moo daa toog lu bare bari ci jàkka ja ba nit ñi miin ko fa lool moo waral rek jàkkay muuma waaye taw féex la koñ boobu tudd njabootug sëriñ daawuda jóob ñoo koy doxal njabootug sëriñ daawuda jóob jat waxaat nañ suuf su yaatu ci dëkk bu sell bii di Touba mu ngi tolloog mbaar yi nekk ci yoonu daaru jàpp quartier bii di kër bàyyi Laat Cheikh Abdou Lahad Mbacke mi nekkoon ñetteelu xalifa Serigne Touba Seexul Xaddiim moo joxoon suuf si njabootuk sëriñ Daouda Diop teg ko ci loxo loxoy xalifab Serigne Daouda Diop ci jamono jooju di ki mu tudde moo Modou Jigal di Serigne Cheikh Jigal Diop lii dim pénc yi quartier boobu am na ko te jat mi Diop lañ koy woowe ci Touba njaboot gi sëriñ daawuda jóob wéy di liggéeyal ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ba jot lii di ngërëmam bi mu jotee ngërëmam ci atum 1903 seexul xaddiim amaan na fi takk-takk ak kii di mbaaxaan tubaab bi dugg ci yóbbuwaat ko ci réew mi di gànnaar gànnaar googu kii di sëriñ daawuda jóob dem na fa ay yoon yoon am na ci yoon woo xam ne rakkam jii di sëriñ mbay aada jóob la fa àndaloon sëriñ mbay aada jóob mi sax sëriñ tubaa seexul xaddiim seexal na ko ndax dafa amoon bis seen waajur wa di sëriñ njaga dégéen jóob waxoon ne dégg na ne ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim tubaab bi teg na ko lii di loxo waaye yàgg-yàgg Seexul Xadiim dana ñibbisi waat ci réew mi buy ñibbisi waat ci réew mi nag moom sëriñ Njaga Déggan Jóob mi du gisanteeg kii di sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim waaye nañ fab lii di ak njabootam jébbal ko ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim noonee mu ko waxee woon nag ni la sëriñ Daawuda Jóob fabe rakam jii di sëriñ Mbay Aada Jóob ak sëriñ Sayer Jóob jébbal leen ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim sëriñ Daawuda Jóob ñoom ñaar kenn ku ne seexul xaddiim seexal na la gànnaar googu bañ fay dem ñeenti doomu aadama lañ ci gànnaar googu sax sëriñ Tuuba seexul xaddiim dénkoon na fa kii di sëriñ Daawuda Jóob di ko xamal ne Daawuda man de sumay wax ak yéen damay wàcc ba tolloog yéen ndax man ak yéen bokkuñu ndax yéen aadama seen maam te man mu njëkk ma bañ koy waajal maa ngi teew wax jooju li ko waraloon mooy bi sëriñ Daawuda Jóob demee foofu ci gànnaar doon ziyaare baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim seexul xaddiim da doon ataaya ginnaaw bu mu ataaya nag suukar sim doon def ci baraada bi bari lool kii di sëriñ daawuda jóob di xalaat cim xelam di wax ne suukar si de macha allah seexul xaddiim ne ko daawuda xanaa li may suukar moo la yéem waaye man de bëgguma lii di suukar yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam laa bëgg te moom rek moo saf ci sama xol bii nim safe ci sama xol bi mënatuma am la neen lu ko safe ci sama xol moo tax de su may suukar wala may def dara damay cey xiir lool ndax ki ma bëgg rek moo nekk ci sama xol bi di muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ca jataay boobee nag ca la ko xelile attaaya mu naan mook rakkam ja sëriñ mbay aada ginnaaw bi nag ci la ko leeralale loolu mu ko wax foofu ci gànnaar ñu toog gànnaar ab diir ginnaaw bi nag la leen seexul xaddiim ñaanal ñu ñibbisiwaat ci réew ñii di Sénégal mu delsiwaat nag des ci dëkk bi di daaru xarañ di xaar ku baax ki gannaaw gànnaar 1907 ca yéen ca yéen jolof googu nag sëriñ daawuda jóob itam dem na fa ay yoon yoon fekki ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ginnaaw ca yéen jolof njaaréem njaaréem googu sax sëriñ daawuda jóob daana fa dem di ziyaare si ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim njaaréem googu sax la ko seexul xaddiim joxe ndigal mu dem sanci dëkk bi di jat mi ci 1913 googu am na bés ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim toog fa wax ne am na lii di ñetti doomu a yoo xam ne ni amal naa leen lii di bor mag ñi fekki woon jataay ba keroog di tontu seexul xadim di ko wax ne mbàkke tëj ñu dugal ci bor bi su matul nañu jéem a wut lu ko mootali seexul xadim di tontu mag ñi di leen wax ni man de Ahmadu Bamba ku ma ameel bor ku ne mën naa laa fay waaye nag bor bi dama bëgg ngeen mat ki lii di seede moo tax ma wax leen ko ñett ñi nag mooy ku ñuy wax sëriñ njaga dégéen jóob ci dëkk bi di daaru xarañ jóob sëriñ moor biraama kumba géey ci dëkk bii di kalsaan ak ku bii di ngay ñett ñii nag ba dara du dara heure boo masaa dem ci dëkk bii di mbataar seeni daamar laa daa war te dara du leen ca metti lépp da leen di neexa kóllëre googe ñu séqoon ak man nag bor laa ko jàppe dinaa leen ko fay li ma leen di faye nag mooy daxalal jannati bi xayril xisaab tabbik ajjana bu amul daray lor ñett ña nag kenn ka mooy waajur sëriñ daawuda jóob mii ñuy waxtaane waajuram mooy sëriñ njaga dégéen jóob seexul xaddim wi li des njaareem sëriñ Daawuda Jóob wéy nekk ci dëkk bii di jat mi ba ci atum 1927 bi sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim génnee lii di adduna sëriñ Daawuda Jóob nag fab na léppam jox taawu Seexul Xadiim ba di Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke di ko xoolee Seexul Xadiim def ko ab sëriñ akub royukaay ba ci atum 1939 mu fekki ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim sëriñ Daawuda Jóob ku amul relation la ak mag ñi toppoon sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim rawatina njabootu ku baax ki sëriñ Tuuba ndax kii di cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke tudde na ko lii di doom kii di cheikh mi nekkoon xaritam nekkoon wëllëreem itam tudde na ko sax bi mu kii di cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke mi toogoon toogaayu xaadim rasul nee na jël leen kii di sëriñ Daawuda Jóob jox ko xaritam ba mu jël ko jullee ko denc ko sëñ Fàllu Mbàkke ñëw na ay yoon ci dëkk boobu di jat mi jóg seet si kii di sëriñ Daawuda Jóob ndax ak kóllëre ak xarit gu ñu amoon sëriñ jiili mbàkke moom ma mamadul faadal mbàkke kii di sëriñ daawuda jóob maamam la soxna assu mbàkke mbàkke kajoor nekkoon doomu sëriñ tuuba seexul xaddim ku sëriñ daawuda jóob soppoon la ndax dafa amoon bis sëriñ daawuda jóob doon ziyaare si ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim ci dëkk bu sell bii di njaareem ñëw fekk kii di soxna assu mbàkke mbàkke kajoor nekk ci mbàkke kajoor sëriñ daawuda jóob fop addiye ja jox ko kii di soxna assu mbàkke mbàkke nag la demaat ci sëriñ tuba seexul xaddim di ko xamal ne am na ay addiye yu ma la doon yitt waaye soxna assu mbàkke mbàkke kajoor laa munta romb moo tax ma jox ko ko seexul xaddim di ko xamal ne noonu la saa boo ma dee yittati addiya boo gisatee soxna assu jox ko ko noonee nag sëriñ daawuda wéyoon na di ko def kii di soxna assu mbàkke kajoor ba tax na lii di doom sax tudde na ko soxna assu mbàkke mbàkke kajoor ndax doomam ji ñu daa soxna jóob jat mi duppee soxna Jóob mii sax maam Ceerno Ibrahima Faati lañ ko joxoon mu denc ko comme lii di soxna waaye amuñu lii di njaboot soxna si sax bi mu làqoo yàggul seexi sëriñ Tuubaa yi ku ñuy wax sëriñ Moodu Jigal mi nekkoondoo nag moom ci kër ma géy ndaw ci ëttub Seex Mandumbe Mbàkke itam tudde na ko doom ndax ki ko njëkk a wuutu sëriñ Moodu Jigal moomu la ko tuddee kii di Seex Ibrahima Jóob Almasari itam tudde na ko lii di doom ndax ñaareelu xalifaam kii di cheikh Mandoumbe Mbacke mi mu nekkoon ci ëttam bi seexul xaddim nekkee ci géej gi séq naa moom relation bu yéeme yéeme sëriñ Daouda Diop mi ngi génn adduna ci dëkk boobu mu sancoon ci atum 1913 ñu koy wax jat mi Diop nekk ci wetu dëkk bi di Daaru Moxti ci feebar bu ko tëral kon sëriñ Daouda Diop mi ngi génn àdduna bisub àllarba ñaar fukki fan ak ci weer wi di rakkaat ji gàmmu ci atum 1358 ci gàddaay gi àllarba ñaar fukki fan ak ñeent ci weer wi di rakkaat ji gàmmu ci atum 1358 ci gàddaay gi dëppook muy mercredi 12 juillet 1939 mercredi 12 juillet 1939 ci dëkk boobu mu sancoon di jat mi jóob ñu jële ko jat mi jóob indi ko ci dëkk bu sell bi di Touba ci xilaaf ak cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke wax ne nañ ko jox xaritam ba cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke kon cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke moo ko taxawu moo ko jullee seede ci moom itam seede bu am solo sëriñ daawuda jóob ay xalifaam nii la tëdde ci atum 1939 ba atum 1992 ku ñuy wax sëriñ cheikh jigal jóob mooy ki ko wuutu sëriñ cheikh jigal jóob nii sax sëriñ du jigal la ko tuddee ndax sëriñ du jigal ab xaritam la woon te ñoom ñaar la seexul xaddiim joxoon sëriñ ma ndumbe mbàkke ngir mu tarbiye leen yar leen ci dëkk bii di kër ma géy ndaw doomam ji njëkk a wuutu sëriñ cheikh jigal lañ ko doon wooye waaye sëriñ Serigne du Jigal lu ko tuddee kon ci atum 1939 ba atum 1992 ñaareelu xalifa Serigne Daouda Diop mooy Serigne Ibrahima Diop almashariyu moo toog xalifa ci atum 1992 ba année 2012 moom Serigne Ibrahima Diop almashariyu mi Serigne Ibrahima Diop almashariyu itam la ko tuddee nekkoon ab xaritam di ab wóllëreem waaye ñu bari Serigne Ibrahima Diop jat mi lañ ko gënoon a xamee moo ci atum 1992 ba atum 2012 ñaareelu xalifa sëriñ Daouda Diop lii di doomu sëriñ Daouda Diop yu góor yi nag jeex tàkk ci kaw suuf sët nag tàmbulee wuutu seen maam ja njëkk a maamam ñu koy wax sëriñ Assane Diop moo toog ci lam 2012 ba nëgëni doomu sëriñ Moustapha Diop la ibnu sëriñ Daouda Diop ñu koy wax sëriñ Moustapha Diop Barga kon sëriñ Assane Diop mi moo nekk xalifab sëriñ Daouda Diop ñu koy ñaanal mu yàgg ci toogaayu njabootu sëriñ Daouda Diop bi te suñ boroom teg ko loxo sàmm sàmm ko te aar ko te yàggal ko nag ci xilaafa gi sëriñ daawuda jóob am na nag bis buñ koy fàttaliku muy fukki fan ak benn ci weeru tabaski doomam ji mu duppe woon cheikh ibrahima jóob almasariyu moo ko daa amal ci quartier bi ñu féete ci wàllu tuuba ñu koy wax jàkkay muuma jàkkay muuma jooju lañ daa amale lii di màggal gi fukki fan ak benn ci weer wi di tabaski ndax sëriñ ibrahima jóob almasariyu mi nekkoon ñaareelu xalifa sëriñ daawuda jóob moo sasoon lii di màggal gi màggal gi nag daana wax ne da sant sëriñ Daawuda Jóob mi ko boole ci seexul xaddim ak kii di cheikh mamadul faadal mi miñ ko joxoon màggal mi miñ ko tàmbali ci atum 1993 am na itim ganeen màggal gu amaatoon ci jat mi njabootug sëriñ cheikh jigal jóob gi ñoo ko doon amal doon fàttaliku seen waajuroo sëriñ cheikh jigal muy fukki fan ñeent ci weer wii di tabaski foofu ci jat mi jóob ci at mii nag di 2009 la sëriñ ibrahima jóob jat mi boole ñaari bisi ñu jële ko jàkkay yóbbu lépp jat mi di ko màggal ci fukki fan ak ñeent ci weer wii di weeru tabaski di ci fàttalikuwaale seex ibrahima jóob sëriñ seex jégal jóob ak sëriñ daawuda jóob mi leen boole ci seexul xaddim foofu ci jat mi jóob kon benn màggal googu la am moom sëriñ daawuda njaga dégéen jóob mi ñi ñaanal doomu sëriñ njaga dégéen jóob ji ak kii di soxna aadama jóob magi sëriñ mbay aada jóob ma yàlla ñu ko yàlla fayal yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem bi doon liggéeyal te suñ boroom jaarale ci barkeem ak dara jaam ak kam doon liggéeyal lii di jafe yi am ci réew suñ boroom teggi